7 novembre. waaw loola ay droit la. droit droit droit prérogative président Diomaye la droit yi président Diomaye la loolu. cons nu ma bet assemblée. ni ñu ko tëralee ba ni mu egsee fii c'est illégal c'est illégal. mooy titulaire waaye. waaye yow looloo ci gën a tuuti règlement intérieur ba biir assemblée. xoola dañ ko jël teg ko fële indi seen réglement teg depuis ba ñu toogee ni premier ministre dootul amati ñu dem ba nar a dugalaat premier ministre taxul ñu changer règlement bi te ci règlement boobu lañ doon tënku di ci voté ay budget di ci def ay euh, motion de leneen ak leneen ak leneen waa léegi li jaaduwul ñu yàgg ko constaté ñu dem ba assemblée boobu treizième xaw ma quatorzième euh, quatorzième assemblée bi ñu koy fal ay gendarme ñoo leen may possibilité ñu mën a voter loolu fal ko parce que dinaa la waxal benn affaire am nañ chance bu baax a baax ndax naroon nañ am bettaange ci jamono bi ñuy fal président assemblée mais gis nga ni ñu ko doxale ak trahison ya ñu def war ami Aminata Aminata Touré ah saaga nit ñu wax lu leen neex traité leen n'importe quoi et alors résultat yooyu yàlla dogal. assemblée boo xamante ni ñoom ñoo poussé dem di voter loi boo xamante ni dafay bëgg a àndal élection yi wala loi boo xamante ni dafay permettre Macky Sall mu def troisième mandat baal ma de mu def troisième mandat waaye sëñ bi boobu assemblée ku ko fi bàyyi mu tas réew mi. mais ne tamit président mën na dugg ci illégalité bi mu fixé DPG bi le 13 ñëw tas assemblée le 12. Euh, gis nga. jàpp ne Ousmane Sonko day daw assemblée. gis nga Ousmane Sonko. su ma neexee sax ni bu ko neexee mu daw assemblée parce que kuy daw assemblée du wut ne def leen lii bu ngeen deful lii man ma dem wax ak sénégalais yi daf ni def leen lii jubbanti leen assemblée ba mu jaar yoon parce que règlement intérieur bi man Ousmane Sonko nekkuma fa waaye seen naataango bu tudd Guy Marius Sagna bind na ma nee na depuis ba ñu dindee poste premier ministre dañuy bafoué règlement intérieur bu assemblée jubbanti leen ko ma ñëw waaye sëñ bi Macky nuñ koy tuddeeti Diomaye bi coow li bëree fay na wax ji woo président assemblée wax ak moom ba mu waxee ak moom dugg moom biir ruq woo président Ousmane Sonko wax ko Ousmane fekk si ko ci lam wax mu woo mu woo euh, presse bi wax lépp ci digg ci digg bi sénégalais yëpp dégg ko est-ce que ba Mamadou Mamadou Mamoun demee tax na mu faju fajwul xale bu tuuti mel ne guutut mel ne ramatu taxaw di fëgg taaba ji naan woy dee demee bu kenn tukki nañu ñëw ma daaneel gouvernement gouvernement boo xamante ni bañ koy fal booba juddoo go naan danga koy kii nañu arrêté seen euh, yëfi konaar yi ñu def ay alors Imaam xam nga nag dama ànd ak équipe bu dynamique euh, muy sama technicien ñu may signaler que ni actualité la muy jeunesse bi nga xam ne ñu ngi jël gaal gi di ci dem du ñàkk di nga ci indi ay kàddu yoo xam te ne bëgg nga ko jagleel ak digg yi ci président def ne dinañu fexe teg daan képp koo xam te yaa ngi ci yëngu est-ce que jàpp nga ne loolu mooy saafara bi carrément man jàpp naa ni sax Sénégal yi fi ñu toll insha allahu taala dinañ ci jël que am na loo xamante ni bët li koy fàtte du ko gis am na mbir mu nekk ci biir. jàpp ne moo nekk ci biir. gis nga dafa am lu Serigne Cheikh waxoon te duñ ko bàyyi xel te toujours dinaa koy répéter waaye waaye ngalla na ngeen di teg na ngeen di teg lii may wax Serigne Cheikh daf ni woon nañu sangat réew mi ba pare mu ne am na ay afaarit xam nga afaarit mooy lan mooy ay jinne yoo xamante ni dañu songo Zaïre réussir Zaïre yàqate ko. Zaïre mooy Congo. Congo bu Mabutu yàqatu yàqate ko nee na affaire yooyu nag ñu ngi dugg si biir Sénégal te lu ñu fi fekk dañ koy rajax ca la doon waxee sax ba naan man des fois damay fekk sama téere yeeg yooyu sama bindukaay ma teg ko benn position mais bu ma ñëwee gis ñu changé ko wala ma jekki ba mu yàgg di dégg bruit mais kooku yow boo ko xamul dundoo ko xamoo luy afrit xamoo luy afarit xamoo luy jinne boo sobentalee wax jooju yaa ngi daaneel Sénégal oto boo xamante ni danaan xës dal ñu ne fukki nit dee na ñu ne danañ ko corriger balaa ñuy parewaat nga gis jigéen ju jël walla góor gu jël gaz dugal ci oto gaz ba kii ba explosé gaal yi di jël ay xale yu tuuti di leen dugal ci gaal gaal gi dem ba ci biir géej tëmb ñu lab dee ñu dëjal benn fan ñaari fan ñetti fan fàtte loolu mais bakkan du fo. nga jàpp ne am na lu mystique lu la. ñuy jël paaka di jam nit ñi di rey comme c'est pas possible mais loolu am na lu ko waral li ko waral nag mooy nañ ci def ñaan d'abord nañ ci génne ay sarax d'abord seet ñoo xamante ni seen seen seen seetu xam-xam ak seen set ci seen borom subhaanahu wa leer na ñu am nu ñu def ku ci mel ne maam Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh da daan toog ba mu yàgg ne ah am na koo xamante ni kat wax gént na gis nangam kon génne leen nangam ak nangam mais déggatuñ ko ci Sénégal. loolu diine dafa war di saytu askan ba yilif. loolu nag autorité yi ñoo ci am part de responsabilité nañu seet ñi sell ñi sell te ñu xam ni ñii sel nañ ñu dem waxtaan ak ñoom ñu raxas réew mi sangat ko buñ ko sangatee yàlla génne ñu ci lii ñu nekk. waaye beneen bi nag bi des mooy affaire gaal yi par de responsabilité parent yi am na ci gis nga àdduna àdduna xëyul xëy sotti te du xëy xëy xëy na jeex na tàkk sa doom ji jóg ngay jaay di taaba taaba dajaleel ko cinq cent mille wala un million boo ko ko joxoon mu am nu muy defe fii yàlla mën na ko ci defal sutura lu tax ñu bëgg a yaakaar ni génn bitim réew rek mooy tax mooy tax ñu war a mën a réussir déedéet man d'accord ma ci boobu am na ñoo xamante ni génn génnuñu bitim réew ñu ngi fi toog tappale wu ñu dundee te ñu ngi réussir ah xoolal ma ci mën naa la tuddal ñu ñu dul jeex ki ma ci mën a seppi rek bër ki dem la ànd ak président dem Chine muy mbuub CCBM xoolal li mu réussir ndongo daara la fii la jànge alquran mokkal ko nasaraanam sax taxu ko demee noonu waaye terewul économie réew mi mu ngi koy doxal donc kon maa ngi ñaan xale yi moo xam jigéen ñi la moo xam góor ñi la nañu arrêté phénomène boobu ñoom ñoo waroon a jël seen responsabilité parce que à cinquante quatre pour cent ñoo taxaw votel ñii nga xamante ni ñoo fi nekk muy président Diomaye ak Ousmane Sonko premier ministre mais li ma leen di waatal ci yàlla ni duñ leen mos a trahir ñu ngi ci yoonu defar réew mi redressé nañ li ñuy wax wàllu justice redressé nañ li ñuy wax suñu wàllu économie léegi ñu ngi jub nag ci mbir moo xamante ni far force demande sociale la ñi fi luubaloon xaalisu réew mi ñi ko goxoon dañ ko goqi loola yàggatul nañu ubbi seen bët te xool bu loolu pare danañ xam ndax dañuy liggéey wala duñu liggéey moo gën ñuy daw ci gaal yeeg dugg ci yeneen ak yeneen te beneen bi ci des ñu ngi ubbi buntu da nga daan déposer sa visa

mais ñun la nga ñu egg ci foo xamante ni yow mii ak sa caméra ak sa micro boo bëggee def reportage da ngay dem ñu jox la visa nga dem France dellu si parce que liggéey la fa yóbbu loolu ñu ngi koy dox ndar xëyul xëy sotti te xalanku dajul suuf kon nañu bàyyi xel ne yàqu-yàqu vingt quatre ans lañ fi fekk vingt quatre ans je wala plus parce que mën na doon sax ci jamono yi ba Abdou Diouf naan. da woon anti système système donc ah, mën na doon sax jamono yi Abdou Diouf di wax naan xaw ma woon mbuusu meew bu juróomi dërëm am na est ce que léegi mën nga amati mbuusu meew juróomi dërëm amatul cent franc la léegi donc yàqu-yàqu bu yàgg la boo xamante ni foog ñu am nuñ koy doxale pour mën ko changer ñoom nag lépp tegu na ci seen loxo nañu xëppi suñu bët yu xool incha allah dana réglé wu bu soobee yàlla. imaam Khalifa Babacar Ndiaye amoon mbégte janoog moom fii ci dëkk bu sell bi di Tivaouane imaam laka ngay tàggatoo. waa di sant di gërëm di ndokkeel ñëpp xam naa ni incha allahu suba danañ gën a yaatal ci gàmm gi tey jii la jour noppalu démb la woon jeexitalu burdu bi xalifa bi génn ca commencement ba fin bi mu génn léegi tamit ñu gisaat ko mu jël kele bi nga xamante ni mooy kele jumaa ji yàlla na toog ba jiite si ko fi wala mu jullee si fi incha allahu taala te ñu bañ ko tuddee nag jumaa yi seexal xaaji malik buñu ko tuddee jumaa yi seexal xaaji malik wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada jàkka ji jàkka yàlla la nañu ne jumaay tiwaawan beneen bi ci des buñ ko tuddee masjidu diraar jumaay concurrence jumaay concurrence mooy lan Touba am na jumaa ji ñun war nañu am lii maa ngi dégg ci waxu sëñ Mbay suma juumul bañ koy bañ bañ koy mottali nii mu ne ñu ne am kuy wax ni soroor bi dañ ko xayma woon natt ko mais Serigne Mbaye na leen laajteel leen ma soorooru jumaay Touba ñaata mètre la en hauteur mooy Lamp Fall bi ñu laajteel ko ko ba wax ko mètre yooyu mu wàññi sooroor bi ba sooroor bee mën ko sut ndax bu ko deful woon nit ñi danañ dem ba gëstu ji longeeru sooroor bi parce que nit ñee xeebul wax yu doyet yooyu dañuy gëstu longeeru sooroor bi gëstu bale ne léegi suñu suñu soroor moo gën a moo gën a gudd ci soroor yi nekk Sénégal amul solo loolu débat bu doy waar la bu ko defee loolu du loo xamante ni day avancé loo diine ji du avancé loo turuq suufiyee yi du avancé loo jikko yi tamit kon alhamdulilah ba lii xewee di sant di gërëm kilifa rajo bi ak yéen ñi nga xamante ni déplacé wu ngeen ñëw di leen ñaanal yàlla yàlla na rajo bi yokk eh, te yéen tamit ngeen abonné ndax doo lay jën doo lay jën ndox ni ma koy waxee rek plateau bu ma dem dinaa ko wax ci yéen ni ngeen di toogee seen kër yi bu ngeen liggéeyee ba wàcc nekk ci diaspora bi comme que am ngeen abon abonnement am ngeen wifi ak yëpp boo taalee gis teraanga FM wala Teranga euh, seen Teranga TV nga ñu jox la information yu wóor te wóor te nekk actualité loola jar na nga cay sànni sa tuut di leen jàppale kon maa ngi leen koy ñaan à travers ci chaîne bi nga xamante ni muy Sen Teranga FM eh, Sen Teranga TV ngeen gën a jàpp gën a abonné ngir liñ leen di wax ngeen koy mën a suivre à temps ak liy xew fi ci biir Sénégal di ñaanal ñëpp ak yéen techniciens yeeg tabaarakallaa bu dul woon ak ñoom làmbay ñaaw bu dul woon sentir tubay day wadd de waaw bu dul woon sentir yéen nañ leen fonk te seen yëpp seen tuur a ngi ñëw gis nga léegi presse bi moom bi yeboo ñu préparé dootuñu fi téye ay technicien ay animateur ak yooyu di ko fay ay jox per diem looloo day jeex incha allah àq ji aati ku la di xàq nañ leen jox seen àq ju mat sëkk parce que xam nañ li YouTube di fay xam naa li YouTube di fay ah seex na nga baal ma waxuma pour yàq say client ak yooyu wala say say say say nuñ koy tuddee ti mais xam nañ li YouTube di fay fay leen xale yi salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Imam Khalifa